ndax ñu mën a àgg Léona Niassène ndax la fa nekk tey ci ay doomu aadama ñëpp taxaw wax dëgg yàlla di xaar néew si Lamine Niass bi dafa doon loo xam ni daanaka lu jéggi dayoo la ajaratu aw Diop Ndiaye lii daanaka boo ko dund rek doo ko mën a comprendre lii ñuy xam ne nii moom la ñuy dund jamono ji wax dëgg yàlla daw na yaram lii ñuy dund jamono ji wax dëgg yàlla metti na ndax dëgg la bëgg wuñ ko woon nii suñu yéene ak suñu bëgg-bëgg moo doon dund ak Sidi Lamine Niass ay ati ati at waaye nag wala fi comme ni ñuy faral di wax rek yàlla moom bu soxla keneen ko soxla rek perte na soxla woon nañ nag Sidi Lamine Niass suñu yéene ak suñu bëgg-bëgg moo doonoon dund ak moom suñu yéene ak suñu bëgg-bëgg moo doonoon ah, dem ak moom fu sore sore sore sore sore waaye nag dafa fekk ne amaana yàlla moom moo ko yàlla yàlla bëggewu ko noonu kon yàlla moom bu dogalee rek daanaka li ñu def rek mooy tënku ci dogalam yàlla dogal na El Hadj Sidi Lamine Niass dem na ah, ñu ngi nii nag fi nga xam ne nii moom moo di ci euh, Kaolack ah, fas yéene ko fi eh, denc Isatine. Seydina Omar Ba ni nga ko waxee noonu la jamono ji dugg nañu Kaolack ñi nga xam ne ñooy seetaan Walf TV ñi ngi gis ni ko mbooloo mi toppee dar ko wutaleeg moom fa nga xam ne fa lañ ko nara mu di doon nar doon këram gu mujj waaye itam ñi déglu fi nga xam ne moo di Walf FM ñi ngi dégg noonu sirène yi motaar ñu ànd ak moom nar koo jébbali boroomam moom El Hadj Sidy Lamine mu di mbooloo mu takkoo takku moo xam ne Awa Diop Ndiaye gis nañu ko fii ndaxte askan wi fépp fu ñu romb rek ci biir Kaolack dañuy riir daal di àndandoo ñun àndandoo cortège bi ñoom sax ñuy sàkku ngir ñu daal di daw ndànk daw ndànk ndaxte ñoom itam nee nañu nag war nañoo mën a saafonte ak moom mën a wàccoo ak moom waaye itam mën ko delloo njukkal ndaxte ku xam Kaolack xam fa Sidy Lamine Niass ku xam Kaolack xam fa wal fajri doole jam fa am ndaxte a Diop Ndiaye mën nañoo jàpp ne itam wal fajri lu am doole biir Kaolack la Kaolack gépp a maase koo wax mu ne la wal fajri la ñuy déglu kon ñoom itam am na lu nga xam ne amee nañ ko ko donte moom itam mi ngi leen doon liggéeyal saa su ne di fa bay waaram ca dëkk ba nga xam ne moo di Kaolack tey jii mu daal di génn àdduna ñu fas yéene koo jébal boroomam ca lew na ñu bari nag riir ànd ak ñun jamono ji ñu ngi ciy topp ñu ngi gis noonu cortège bi gis nga sax deux yi awa moo ëpp daanaka gis nga li nga xam ne moo di moto yi ku ci nekk rek yaa ngi taxawoon buntu Kaolack di xaar bi ñu ëgsee rek ci lañ ci topp ñoom itam ñuy daw ndànk di raam ngir askan wi ñoom itam am nañ ci wàll ci moom am nañ wàll ci moom ndaxte moom itam ku leen fonkoon la ku fonkoon askan ni ko ñëpp waxee la voix des sans voix biir kër yi immobilier ak étage yi nga xam ne moo fi nekk ku ci nekk da ngay gis mu taxaw sëpp ci balcon bi ko xool ñi nga xam ne itam mën nañoo génn ñu génn taxaw drapeau yu weex drapeau yu weex lañ ko doon tàllalal ci dëkk yi ñu romb yëpp waaye itam yeneen dëkk yi nga xam ne ci lañuy jaar mbooloo mi ku ci nekk génn mag ñi bari na ci lool Awa Diop Ndiaye mënoon nañ ay mag lañu duñu génn waaye bu ngeen xoolee xëy na sax di ngeen ci gis ay màgget ay mag yoo xam ne seeni at li mun na lool waaye ku ci nekk donte tàng na naaj bi tàng na ñu génn ngir wàccoog moom ngir delloo ko njukkal ndaxte njukkal lii rek lañ ko amee loon gunge ko ba ci kërug dëgg gi fa nga xam ne fa la fas yéenee tëdd tey fa la fas yéenee fanaan yi moom El Hadj Sidy Lamine Niass nekkoon président directeur général bu groupe de presse Walfadjri dëddu àdduna dëddu Sénégal waaye itam dëddu ay liggéeykatam liggéeykatam yi nga xam ne tey wéet nañu lool Awa Diop Ndiaye la nga xam ne moo xew Dakar gis nañu ko bañ fa jaaree loolu moo xew tey Kaolack mu yemook ñu war a julli ajuma waaye gis nga noonu nit ñi riir nañu wutali ko xëy na julli ajuma gi sax tey jii bu fekkente ne dina amit dinañ jaaxal lool ndaxte mbooloo mi moom riir nañu en tout cas ànd ak ñi nga xam ne ñoo di convoi bi ngir mën a dem ba ci yóbbu ko ca këru dëgg gi Seydina Omar Ba. waaw Issa noonu la fu mu toll nii baa ngi taxaw dafa ay réglages yoo xam ne nii kii di Cheikh Niass bëgg na koy def laataa kon ñu àgg ci dëkku boobee nga xam ne moom moo di dëkku dëkku dëkku dëkku dëkku baayam dëkku baayam ji. di ba nga xam ne nii foofu la ñu fas yéene ki nga xam ne nii moom moo di euh, El Hadji Sidi Lamine Niass euh, cortège bi nag fu mu toll nii taxaw na ñu ngi nekk di def ay réglages yu mujj. Euh, mu doon ay réglage yoo xam ne nii yaakaar naa ne buñ ci par rek ci la a utili fa li nga